jërë ngeen jëf ami internet yu 24actu asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu bàkk ba jibatina rek ñu daal leen di wax li nga xamante ni moo gën a fës ci seen actu du jour tey rek lañ nar a waxtaane moo di ndigal la tuppee ci xalif général des mourides di Serigne Mountakha Bachir jëm si communauté islamique bi yépp rawatina murid yi ngir ñu amal am njàngum alxuraan akum njàngum xasida lépp rek jëm ci ñaan ngir nawet bi daal di nangu lool ak lépp loo xamante ne nii rek ay bàkkaar yoo xamante def nañ ko daal di tuub sellalaat suñu njébbal daal di jëm ci ki nga xamante ni moo di yàlla suñu borom daal di koy ñaan rek lépp loo xamante ni def nañ ko mu daal ñu koy jéggal ki doon jottali yooyu les kàddu du Serigne Mamor Mbacke imnu Serigne fàllu Mbacke di fàttali waa rek na ci ndaje moomee nga xamante ni Serigne bi joxe na ndigal ngir ñu amal ko alxemes ji du tee rek dañuy fonk li nga xamante ni moo di mesure barrière yi tuppee ci kër docteur lépp rek jëm ci xeexum jàngoro ji di Covid 19. ñu wax ci leneen soxal loolu wàllum actualité di Barthélémy Dias ci ab émission bu mu doon amal ak Sen TV wax na ne du man ak Moussa Diop du man ak moom li mu wax rek su doonul woon dëgg nee na kon ñu def ko ni ñu def Cheikh Yérim Seck lépp rek ngir weddi li nga xamante ne ni moo di siège APR bi nga xamante ni tabax nañ ko ci ay njublang rek lañ ko tabaxee ki xam la yooyu les kàddu rek moo di Barthélémy Dias nee na loolu mu wax rek bu doonutoon dëgg kon ñu def ko ni ñu def Cheikh Yérim ci fàttali rek Cheikh Yérim Seck rek ñu ngi ko teg loxo niki démb ci altine ji bi ay 11h jotee ca brigade de recherche de la gendarmerie de Faidherbe jëm ci affaire Batifulis bi nga xamante ne nee na 4 milliards lañ ci dugal au lieu de 650 millions de francs CFA te nangul wax benn yoon source yi mu ko jëlee ba tax rek tey jii ci talaata ji doon na janook procureur bi ngir division de fausse nouvelle ba sax nag daal dinañ koy déféré bi ay 10 jotee avocat bi nag di Mamadou Gueye am moo xam ne yooyu le kàddu ci coow yooyu rek la ñuy daal di gisee ni daal di wax ci ki nga xamante ne ni moo di Thione Ballago Seck ci coowul faux billets yooyu nga xamante ne nii amoon nañ ko ñu gis ne rek mën nañoo xaari ne juróomi ati koso mi ngi koy daal di ñeel ba sax si la daal di yëkkati ay kàddu yu daw yaram ah, jëme ko ci mbir moomule ne jëf ji du ko mas a fàtte ba si biir bàmmeelam ak li ko gën a métti rek mu di carrière doomam ji ndax nee na bu démb doon tey boobu lay jëf du ko mas a def ndax métti na ko loola ah, ba ca kanamu yàlla ñu daal di koy jeexaleeg coow yu metti yi nga xamante nemmeeku nañ ko ci cantaakun yi ay doomu Cheikh Béthio ñoo bëggoon nangu euh, kër soxna Bator euh, ca Madinatu Salaam ci week bi bii ba sax jot nañu fa xeex ak ki ñu fekk foofee ca kër googule buñ sukkandikoo rek ci soxna Bator euh, liñ bëggoon ñoom liñ bëggoon ñoom doom yi mooy teg loxo bien yi ko Cheikh Béthio bàyyee woon ba sax ci ab vidéo bu gàtt bu mu wane ne Cheikh Béthio mi ngi séddale ay héritage ak ay soxnaam daal di génne rek benn papier administratif daal di ko yore rek ci loxoom dinañ leen ko toppalaatal lépp loo xamante ne ni ruusandiwaat na ko jëm ci coow loolee dinañ leen ko toppalaa ba xam fan lay mujjee boobu la coow moom soxna Bator ak doomi Cheikh Béthio Thioune yooyu lee lii rek moo fi ruusani woon ami internet yu 24 actu dig daje lay doon ba ëllëg ak jàmm